bon Abdoulaye Daouda bi ma waxtaan ak moom j'ai vu un homme déchiré. déchiré. Mmh. maanaam dafa gëm Macky Sall depuis le premier jour jël risque yu bari pour Macky Sall aussi nekkoon ci benn société d'État Macky Sall di ñëw Fuuta mu accueillir ko ñu dàq ko. jamono jooju aussi mu problème ak ñu bari ci administration bi comme Amadou Ba nga xam ne moo doon chef am tout ça tout ça à cause de Macky Sall comprendre nga mu jàpp ni aussi kon bu ñu demee ba nga xam ne Macky Sall mi ngi dem parce que un jour maa ngi ko koy wax sax ni ko mais euh, yow lan moo tax kenn xamul mu ni ma bëgguma woon kenn xam ma parce que man sama carrière politique dama jàppoon ni dañu war a dama boonoon liggéey rek pour Macky Sall. Abdoulaye Wade moo wax loolu waaw mun ma ku ma amal problème sax ay Amadou Ba yi ñuy wax yëpp yëpp yëpp yëpp Macky Sall moo tax parce que man ku ma mës a jàpp ni da ngay xeex Macky Sall rek dama lay xeex tu donc euh, c'est infidèle de la première heure boo xam ne depuis toujours mi ngi fi euh, jàpp ni moom bu waa ji demee moom moo war a continuer doxal yëf yi. Euh, yàlla def nag bon choix bi tombewul ci moom donc dangay comprendre aussi faaw mu am lu ko metti même bu fekkee ni sax peut-être par respect pour le président dafay nangu lale mais mënu nit nit nit rek la parce que affaire bi aussi neexul ci xol tu vois bon cela dit aussi euh, politique xam nga il faut aussi ñu xam la c'est vrai boo xoolee aussi benn bokk yaakaar ñi fa nekkoon ñëpp. boo day xool notoriété ak yooyu Amadou Ba moo leen ko ëpp et puis sax y a autre chose euh, au-delà de ça sondage yu bari aussi dañu wane ni moom ci camp boobu moo fa ëppoon chance su gagné donc le choix est judicieux te objectif bi moo doon gagné le est judicieux je que tey euh, boo doon tànn parce que Macky Sall li wax leer na il faut mu doon koo xam ni euh, xam na liggéey bi te Amadou Ba boo xoolee parcours am euh, je veux dire euh, jóge directeur des domaines nekk euh, ministre des finances. non directeur des impôts. impôts directeur des impôts après nekk directeur des impôts et domaines jóge fa nekk ministre des finances premier ministre. ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères ci diggante ci dëgg-dëgg xam nga li yëf yi di donc liggéey bi moom xam na ko. Euh, mu boole ci koo xam ne nii xam na PSE bon Amadou Ba bon waaw tout le monde sait que ñi concevoir PSE bind ko doxal ko ci la bokk euh, ñi dem sax défendre ko club de club de nu mu tëddati affaire bi amoon Paris club de Paris groupe consultatif waaw groupe consultatif pour xaalis moom la ñu jox ko xaalis bi dul jeex donc xam na ko deux groupes consultatifs voilà et puis euh, bu dee nag mën a gagné ñi fi nekk moom moo leen ëpp moo leen moom lañ gën a xam nag parce que Abdoulaye de moom voilà quoi euh, comme li mu wax rek comme comme di dit Idrissa Seck il s'était fondu dans la personne du président là il s'était éteint dans la personne de Macky Sall dafa tax génnul daal ba nit ñi gis ko découvrir ko xam ko alors que Amadou Ba euh, voilà ci camp présidentiel daanaka moom lañ ci gën a xam moom ak Dione ñoo ci gën a ñoo ci gën a fës. alors de position yi ñu occupé ak yooyu.